bismillah Ibrahima sant yàlla julli ci sangub sang yi Seydina Mohamed sant suñu ñaari waaju sant suñu wasele Cheikhul Khadim di leen nuyu baax di leen ziyaare te di leen baalu ak yéen ñi nga xam ne saa su ne yéen a baaxoo di jàkkaarloo waar wi TV waar wi TV ci tofeel gi ngeen am ci moom ci yitte ji nga xam ne ci lay dox moo waral tey ñu taxaw fii nag jitee nuyoo bi suñu kilifa Serigne Mountakha Bachir yàlla na fi yàlla yàggal lool te wéral li cëram di nuyu di ziare suñu Cheikh Jëmb Fall yàlla fi yàlla yàggal lool Fall di wérali cëram di nuyu mboolem kilifa diine wala kilifa aada bu nekk ci département bi ñu ngi lay nuyu di la ziare. tey bërëb bi ñu taxaw nag ci Madiyana ñu naan ko Mbaria mars Mbaria nga ne ñu ngi fi ci bërëb bu sell bi ñu taxaw fi ci bërëb bu Serigne Soy bu Mbàkke ñu ànd taxaw Madiyana nag sos genn kuréel gu am solo ci ndigalu Serigne Cheikh Mbàkke Soy bu ca mat ak matala ga ñu ànd ak moom di liggéey Serigne Touba ci Madiyana gi nga xam ne bu nee Madiyana xel yëpp koy xam dem ci Serigne Sooy bu Mbàkke Serigne Sooy bi ma nga xam ne moo moomoon alxuraan Serigne Sooy bi mi nga xam ne moo doon dundee charia Serigne Sooy bi mi nga xam ne kenn la woon ci njabootu Cheikhul Khadim ana taxaw Madiyana di ko njukkal sos genn kuréel muy association ànd taxaw ma di taxaw Madiyana ci bépp fànn boo xam ne ci saayir la ndax baat na Madiyana Serigne Soy bu moo ko teel boppam ñu dikk fii nag tey jii nag de seen journée de lancement ne jii nag euh, mu nekk bis boo xam ne bis bu am solo la ci moom nekk ñeenti fan ci weeru décembre ci 2020 fii kër gi nag mi ngi sosu le 5 mars 2020 ci leen ko sos boobaak léegi xam ngeen ne yàggut waaye def na nu mucc ayib ndax Waarwi TV wan na leen saa su ne li nga xam ne moom la ñuy liggéey leen yokk ci ndox mi ak leen defaraat ci dëkk bi a tey fas yéene ànd ak yéen wal leen mbokki jullit yi ak mbokki taaliba yi fu na leen nit jógee ci cofeel gu am ci Madiyana ci cofeel gu am ci Serigne Souhaïbou ak ci cofeel gu am ci Serigne Cheikh Mbacké Souhaïbou ca mat gaang matale ga moo waral tey taxaw fii ci ànd taxaw Madiyana di sant di gërëm kuréel googu seen taxawaay seen posté seen jom seen yar ci liggéey sëriñ Touba liggéey sëriñ Mountakha Bassir ci dëkkam bu sell bi ndax sëriñ Mountakha Bassir kat day nit koo xam ne nii alxuraan moo ko ñor jàng ak jàngale ak defaral ko dëkkam maamam bi looloo waral tey nag an taxaw Madiyana bis bi di bis bu rëy di bis buñ fonk nag moo war ci ndigal sëriñ Cheikh Mbacke Soy bu nag lañ ko wootee ndax bu ne a sëñ Seex Mbàkke son bu sëriñ Muntaxa Bachir mi ngi ci biir ak mboolem njaboot sëriñ Touba képp koo xam ne rek doom nga ci Seexul Xaddim wala nga ci jib seex wala nga ci jib sët xamal ne bis bi bokk nga ji ma ànd ak sama cameraman Sané sama joolaa bu baax bi tey nag ñu dugg ci biir wan leen liggéey bi am solo bin fiy def ak li nga xam ne moom la ci suma jigéen ñi ndax parce que jigéen na ko yor xorom ci cin mooy jigéen ku xool fii ni jigéen ñi mel Pastef bi jigéen ñi mel nga xam ne Serigne Touba rek mooy Serigne Touba kon saana nga topp ma ñu dugg ci biir wala an taxaw Madiyana naka la ñuy jëfale Serigne seex Mbacke Soye ci Madiyana gi